waaw salaamaaleykum wa rahmatulah man mala Arouna Malaye président association des prix progression bi. waaw yow tey ñu doon dund rawante gaal bi. waaw lan lañ ci mën a jàpp Arouna. waaw gaal bi moom jàpp naa ne comme li ma si waxoon rek benn xale bu dëkk Gendar moo ñëw def rawante bi lu fi masul am wóolu ay nit moo tax ñu jël rawante bi parrainé leen ka li ko daggee ministre de la pêche ba si ki gën tuuti si dëkk bi. kon budget bi nga xamante ni moom laa def si rawante bi métti na métti goo xamante ni amaana li ma si waroon def yëpp. def naa ko si mais ñun ko tuddee woon gis ñu si kenn mais maa ngi sant nag waa Langue de bari ñi nga xamante ne ñoom noo génn dama kontaan si ñoom parce que gisuma autorité mais gis naa waa Langue de bari samay mbokk. mais rawante bi neexoon na quand même nit ñëpp ñëwoon nañu. waaw rawante bi neexoon na xam nga rawante boo xam da nga dajale mool yëpp Sénégal li ko daggee Nouadhibou ba Kafountine nga tànn ay type quai de pêche yoo xamante ni ñëw nañu loolu mu nekk lu rafet loo xamante ni histoire la si doomu ndar histoire la si ndar. kon autorité si boppam ñoom lay déglu fi ñu toll nii maa ngi nii dama tëdd si ay si si lu bare si bor yu bare parce que li ma yaakaaroon ak ñoom nin ma texewe rafetul parce que mu le ministre de la pêche maa ngi koy interpellé moom tamit li ñu war def yëpp def nañ ko pour sama première sortie moo def moo nekk nii mais damay defaat deuxième wane preuve képp ku ma seeti woon am naa reçu boo xamante ni téye naa ko kon loolu day jaaru ñun si dëkk nan bokk bi si topp mooy Mansour Faye moom si boppam bu dee meeru dëkk bi la mu bugg ñoom ñu jàppale xale yi kon bi mu demee si réunion URPAS mënoon na jaar noonu dem ñëw seetaan rawante bi parce que ñun li ñu war def yëpp def nañ parce que ñoom noonu soxla kon ñun bu ñu nekkee si dëkk bi bu leen yëgalu leen dan naan kenn yëgalu leen mais yëgal leen ñun war yëgal ñëpp xam nga